وصار على نهجهم الى قيام ساعته مبقي سنغال نيجي نوي نيب في نيك ساتور اك سانت دي الحمد لله رب العالمين سي جوتاي بيغا خامني جوتاي اتو الاسلام اتو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا اتو القران اتو سنه محمد صلى الله عليه وسلم ëttu mag ñu baax ñi la ndax waxtaanee li nga xam ne kenn mënu ko séddoo muy diine ji nga xam ne mooy diine lislaam ndax yàlla dafa wax ci alquran ne wa man yabtagi xeyra al islaama diinan lan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin képp koo xam ne ngëpp nga ci loo xam ne ni nekkul islaam loo mën a jàpp da ngay perte te su bés pencee da nga bokk ci nga xam ne ni ñoom perte dina la joo xam ne dina istiwa dina yemoo dina la joo xam ne dina yuy mandu la oote ñun ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nabi adali mooy yonent bi mandu bi loo tax bi muy wax ak euh, yi jamono mu nga xam ne am na beneen diina juñ doon yëngatu daf leen wax yaa ala kitaabi taalaw ila kalimati sawaa'in baynanaa wa baynakum ñëw leen ci kaddu goo xam ne dafa yemoo suñu diggante ñun ak yéen كاتو بوبو مويلا ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعدا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون كم من و تلفزيون بي كتي غنا كاري با كتي غنا سوفي دير كير سوفي وفن واي امنا كو يليف امنا كو يليف با امنا كو غنا يليف كتي لول مو ام تي مولم

waaye bañ ne allahu moom ke réeréetu kenn kenn réewu waaw allahu moom jeexal na lépp kon nañ daa doon tàggoo di ko nuyoo ba tey